gis nañ nga ñëw si match entre rappeur ak mbalaxmaane noo gisee initiative boobu. waaw kii bu rafet la rek. waaw initiative bu rafet la mooy que ñu lay dundal surtout sport Sénégal surtout boo gisee musiciens yi di créer ay match pour euh, public bi di gën a ñëw tey boo xoolee stade day mel ni que ay match championnat ñoo am. mais def naa ne comme man ñoom baxaw ñoom ñëpp samay gaañ lañu ñoom ñoo gën a tax ma ñëw. ñoo may jox ay ticket ñoo may jox yëpp chaque année damay ñëw seetaan si match yi mais dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk rek parce que euh, kii bu rafet lañu ñuy doxal daal euh, kii bu Sénégal si musique bi ak si sport bi tamit. waa nice na trop waaw man. non baxaw sama gars la ñoom laa faral nag rappeur bi rappeur bi laa faral parce que dañu waxoon damay jouer mais Paco dafa bañ <laughs> mais nañ ñaan yàlla rek comme muy gën a yokk rek waaw muy gën a yokk mais kii bu nice la quoi waaw jaajëf